ñun waa askanu Jolof dañoo am lu ñu naqari tey di ko joytu boo xoolee lii ñeenti commune la ñu boole commune Taïf bu Sadio bu Gassane bu Thiel actuellement nag dañoo sonn dañoo tàyyi dañoo dee gisuñu suñu bopp ci nguur gi dëkk ñu dëkk ni am na lu ëpp téeméeri boo xoolee tey suñu économie ni dafa yàqu commerce bi doxul mbay mi doxul fii nit ñi dañuy bay gerte ba pare du ñu am ku ñu ko jaay ndax amuñu baana baana yoon bi baaxul mbay mi maraîchage bi dafa yàqu ndax yoon bi baaxul aussi commerçant yi ñu ngi bëgg a dee boo jëndee fii bagage doo ko mën indi ndax yoon bu ndax yoon bu bon te pourtant Touba sori mais li ñu ko teg mooy yoon bu bon askan wi nag tey ñoo ànd takkatoo di jooytu ne xamal ne ñoo ngi bëgg a dee sonn nañ tàyyi nañ dee nañ du ñu sànni xeer du ñu taal du ñu lakk mais dañ lay wax ne am nañ suñu droit ci réew muy booloo wala nañ am na ñu lu ñu naqari gisuñu suñu bopp ci réew mi benn yoon fii bu fi jigéen di accouché sa fiit wi a évacuer Touba Matlaboul Fawzeyni mais toujours yaa ngi en danger parce que yoon bi baaxul boo war a def une heure de temps da ngay def de temps monsieur le président ñoo ngi lay wax nga gestuñu ñu ñun askanu waa Thiel waa Gassane waa Sadio waa tey sonn nañ sonn nañ tay nañ dee nañ te pourtant ñoo ngi fay impôt comme ni ñu waree aussi ñoo ngi wate ay ay électeurs tali bi ñuy réclamer dafa jógee ci Taïf la yem ak si bu Taïf la war a yow dem ba Thiel mi ngi war a toll ci presque 73 kilomètres. waaw 66 kilomètres la war a toll. pour ñu ci dimbali woon dina parce que actuellement sonn nañ trop boo xoolee mbooloo mi quatre communes la ñu boo xoolee mbooloo mi quatre communes la ñu boole guddi ak bëccëg suba ngoon ñaa ngi bëgg a dee boo waree jógee Touba sax sa xel du dal te Touba mi ngi nii ci tout près soriwul dara lépp yoonu bon moo ñu ko teg. actuellement nag wane nañu suñu bopp dara bi yoon nag. ñi wane nañ suñu bopp alerte la ñoo ngi alerte ñoo ngi alerte président bi ñoo ngi toog nag di ko déglu may nañ ko fii ak deux mois bu réagirul dinañ ko defaat wan ko na ci réew mi lañ bokk te li ñu laaj ñoo ko moom. laa ñëw Gerle nuy ànd ak coono ba 2022 lépp loo xam ne xew na fi coono yu métti rek la ñuy demee. Sénégal tayif la yem la tax ma ne ko Sénégal tayif la yem foo am goudron bokkoo Sénégal ñun dañoo mel ni ci Mali lañ bokk. waaw waaw waaye président Macky Sall noo ngi nii noo ngi nii ci say loxo gannaaw yàlla noo ngi lay ñaan loo xam ne yaa am yaa ko mën a dimbalee ndax tali bi boo jógee Taïf ba ba ngay jaar Sadio jaar Gerle dem Gassane ba dem Doli dem Thiel ba ba ngay dem Barkeeji lépp ci yoon wi ci la bokk kon noo ngi lay ñaan nga taxawunu ngën ji taxawu leer nañ na mën nga noo dimbali doo ci sonn eh, réew mi nag yaa ko moom ginnaaw yàlla ci say loxo la ne ku mu neex ci say loxo la ne ku mu naqari say loxo la ne ku bëgg ci cere jaboon nag da nax doom ja waawaw waaw ma ne Macky Sall noo ngi nii bëgg nga dimbali ñu dimbali ñu te yàlla tax. am na yoon boo leen romb fii ci yoon bi ngeen di ñëw benn montagne man li may doon doon gone bi ma juddoo ba léegi jéggi siraat lañ ko tuddee ndax métti. jéggi siraat lañ ko tuddee ndax métti. deuxièmement ñëw naa fi heure bu ne génne nit fii ci pax yooyu ñu romb ci ginnaaw ñoo xam ne dañ fa accidenté gravement sax. Eaux et Forêts Gassane accidenté na fi ñoo jël oto ñëw lonk ko pour mu génn fi ñu koy ñaan nag su dee ne ñun ci Sénégal la ñu bokk ñu dimbale ñu geesuñu xam ne ñun ñii am na loo xam ne nii bëgg nañu ko mënuñu ko te ñemewuñu ko wax du ñu sànni xeer parce que ñun xamul loolu xamuñu ko du ñu xaste ñun loolu xamuñu ko li ñu bëgg ku ñu dimbale te yàlla tax li ñuy dimbalee nag mooy que ne yoon bu baax goudron boo xam ne nii bu baax la parce que yoon bi li ñu soxla ñun ci goudron su modee cent vingt trois kilomètres ci la yem loolu yaakaar naa ne su dee ñun ay citoyen lañ ci Séné ci biir Sénégal am lenn loo xam ne ni ñu ngi koy dégg biir Sénégal war nañu koo mën a defal. ñun moo wax dëgg yàlla ak tali bi moom buñ ko ñaxtoo ñun lañ ko ñaxtul en tant que personnel de santé dañoo sonn dañuy accompagner malade ci ambulance yi mit dañuy ànd ak boo xamante ne si mënuñu ko expliquer la sonn moom def nañ ko trop tellement moom ñu ñaan monsieur Macky Sall mu dimbalu ñu te yàlla tax dimbali jigéen ñi ndaxte wér gi yaramu jigéen ñi moom war naa soxal kenn ku nekk te ñun dañoo sonn ñun personnel de santé yi sonn nañ boo demee si média yi télé yi rajo yi sage-femme yi la ñuy waxee te ñun tamit ay doomu aada la askan bi dañoo sonn wér gu yaram askan bi rek moo ñu ñor te ñun la ñuy fuñ toll stress bi ñu àndal ñun rek ñoo ko mën a xam li ñu daj ci maternité yi ñun mënuñu ko expliquer kenn laa la wax kon yaakaar naa ñun war nañoo am ñun benn kër buñ ñu delloo ndax fuñ toll dañ naan sage-femme yi sage te li ñuy daj ci askan bi ñoo xam nañ ko malade yi ñu fay fekk war nañ au moins ñu ñu témoin joxe benn témoignage boo xamante ni si lu baax la lu ñuy def si ñoom mais danga naan sage-femme yi dañoo bon dañoo def nii dañoo def naa te wax dëgg yàlla ñu ngi sonn ci ñoom dañuy joxe ñu ñëw ba génn fii taltal ñu ñëw ba génn taltal ambulance bi am problème foofu te xam nga loolu tamit tali bi bu baaxoon du ñu dal ambulance bu baax lañu yor mais yoon bi la mënut a supporter dañuy réparer di réparer di réparer luñ luñ liggéey si poste bi dañ koy financé waat suñu ambulance bi ndax mënut a dem ci yoon bi ñu ngi ñaan monsieur Macky Sall mu dimbaluñu te yàlla tax nañu dimbalañ te yàlla tax na wér-gu-yaram askan bi war na ñu yitteel ñun ñëpp